ngeen laajte président Macky Sall joxu ko passeport diplomate dañu bëgg yàq xelu doomu aadama yi président Macky Sall talul Californie Californie moo tal président Macky moom moo koy nee da koy xeexal mais président Macky Sall 16 millions habitants ak passeport diplomate yi problème yi ci